handicapés yi ñu ngi souffrir en silence. loolee di ñaxtu way laago yi Yaama Ndiaye di fësal jafe-jafe yi nga xam ne ay naataangoom ñi ngi koy jànkoon bis bu yàlla sàkk bokk na ci centre d'appareillage yoo xam ne dafa manqué. région yi ko fi am matul cinq régions te ñooñu seen Sénawoo mënul defar du defar appareil en fait soo soxlaa appareil fii ngay ñëw dakaar Sénawoo dafa waroon doon loo xamante ne dafay doon public. accessible ci ñun. ginnaaw ñàkkum centre d' appareillage yooyu njëgu service yi dal di jéggi dayoo. tey jii su ma soxlaa dara benn vis mais su ma demee foofu balaa ñoom ñu may diagnostiqué li nekk ci sama chaise wala li nekk ci sama appareil il faut ma dagg ticket consultation ticket bi 5000 la woon léegi dañ ko yokk yóbbu ko ba 15000 francs muy situation bu tar. si ñi nga xam ne daanaka lu ci ëpp seeni i yoxoo jotul seen i ginnaaw. handicapé moteur pour nga takk benn appareil il te faut trois mille minimum su fekkee ne ñaar ngay takk six cent mille beeke yi ñëwagul loolu soo ko mënul jënd da ngay dem jëndi chaise roulante nga toog ci. àmb mooy ñiy joxe beeke li kale beeke bi ci suuf pour yow doo daanu paire amb ñu ngi ko doon jaaye mille francs léegi yokk nañ ko ba deux mille francs te doon amb bu baax chaque mois tu es nga jënd. du question de jënd bi mais dafa war a doon loo xamante ne dañu ko war a may am na ñoo xamante ne dematuñu école am na ñoo xamante ne génnatuñu seen kër yi parce que lañ leen di fayeeku dafa cher ils sont obligés ñu toog. moo ne day yooyu la jafe-jafe loi bu yees bi ñeel orientation sociale bi daal dinañ ko si dëxëñ waaye malheureusement boobule loi ba léegi mu ngi ci tiroir yi ba ñu ko voté ca assemblée nationale ba léegi mu nekkoon ca atum 2010.